Gambie na ni mu ko xamle woon nag ci fan yi ñu weesu ca la ko xamle démb ca conseil des ministres jëm ci projet de loi boobee nga xam ne rek moo soxal wàllu amnistie Le Soleil yëglekaay feelu ko ne daañu jébal rapport bi nag fileeg ñeenti fan président de la république dana seeti waa conseil constitutionnel ngir déglu seenub xalaat ca la tukkee ci document boobee nga xam ne rek moo tukkee ci dialogue national ba ñu doon amal ay mesures yu am solo bu ñu noppee daañu ko jël ngir mën a jébbal njabootu ñi nga xam ne dañoo ñàkk seeni doom ci ay manifestation jéem leen jox ay dàmpaay nag ñu daal di koy taxawal démb la ñu doon àdduwaat ca conseil des ministres ci ndaje moomee mu doon séq ak jëwriñ yi moom président de la république nag ma ngay gën a dëggal boppam di àddu jëmale ci dogal yi mu bëgg jël ci doxalinu réew Sénégal l'observateur dellu siwaat ne jëwriñ yi kay jamono ji nag adopté nañu projet de loi boo xam ne rek xamuñu lan moo tënku ci biir document boobee document am déet nag lu mu ci mënti doon Vox Populi moom ma ngay xam ne ne président Macky Sall dana seeti ji waa conseil constitutionnel te itam dana sàkku ci juróom-ñaari saa yi nag ngir ñu leeral seenub taxawaay jëm ci la ñu tënkee ci dialogue national bi ñu doon amale ca jam ñaajoo rapport bi nga xam ne rek moo jëm ci dialogue national boobee nag daañ ko ko jébbal altine yemook ñeenti fan ci weeru mars atum 2024 lu mu ci mënti doon daal Le Quotidien yëglekaay nag ma ngay xam ne ne président Macky Sall moom jël na dogalu dem ñaari fan ci weeru avril mu di ab décision boo xam ne rek jël na ko ba noppi tey jii fas yéene naa dem ca conseil constitutionnel ngir sàkku ci ñoom nag bés bu demee ñu wut ku koy wutu ci bopp réew mi bés bi le jour xëy àddu jëmale ci ñaari fan ci weeru juin yi ñu jàpp élection présidentielle yi ak article 36 alinéa 2 mu ne président Macky Sall nag ma ngay renvoyé bal bi ci ñii di juróom-ñaari sage yi cérémonie bi nga xam ne rek moo soxla remise conclusion yi ca dialogue national bi nag altine ji lañ ko fas yéenee amal la président Macky Sall nag bëgg nañu taxawal ci nu mu gën a gaawee ab loi amnistie lu jëm ci wàllu ndàmpaay nag ñu ngi koy waajal jamono ji ngir jébbal ko njabootug ñu lorule la tukkee ci dialogue national bi nag enquête yëglekaay ma nga cay dellu ne ça passe ou ça lu mu ci mënti doon daal dafay jàll mbaa ñu taxañ lépp sànn ca ñag projet de loi bi jëm ci wàllu amnistie nag démb adopté nañu ko ca conseil des ministres fas yéene koo jébbal assemblée nationale ñàkk déggoo yi nga xam ne rek tàmbali na cee am xaat conseil constitutionnel ak article vingt sept am bii nag boo mooy tuulee ay jafe-jafe nag nar naa dikkal président de la république ndax conseil constitutionnel képp nag moom moo yooyoo jël ay dogal yoo xam ne rek daañu ko mën a doxal lu jëm ci mbirum Karim sa Wade nag tey jii Walf Quotidien ca def taxaw seetlu yéene kaay bi ne ndax président Macky Sall nag daa bëgg Karim Meïssa Wade bokk ci élection présidentielle yi kaay bi nag ma ngay xam ne ni daal loolee dana ca waxtaan ak waa conseil constitutionnel jamono ji nag ñi faree ci ku jégi ñoom ña ngay wane seen bopp bu baax a baax ca la tukkee ci li nga xam ne rek moo di dialogue national bi ñu doon amal wax ci leneen loo xam ne rek xew na ci réewu Sénégal musiba mbaa kumba mu di Barça wala Barsaq 24 heures yëglekaay di ñu xamal ne nag jamono ji ab gaal goo xam ne rek moo yeboon ay migrants doon wutali bitim réew moo daal di suux ci waaxu Saint-Louis ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñaar la ñu daal di wàññi ne ñàkk nañ seen bakkan ci jamono ji ñuy taxawal ab comité régional de xam ne rek gouverneur bi di Alioune Badara moo ko fas yéenee doxal mu di joo xam ne rek xew na démb ca diwaan bu ndar yéenekaay bi di libération xëy di ci dellu siwaat ne musiba mbaa bëkku mbakay moo xew démb ca waaxu goxu mbàcc nekk ca diwaan bu ndar géej ab gaal goo xam ne rek ñetti fan a ngi nii bi mu bàyyeekoo ca Joal yaboon lu toll ci ñetti téeméer ci ay doomu aadama doon leen yóbbu ca Espagne moo dal di suux ca salsal waral nag ba lim bu takk ci ay doomu aadama dal di ciy ñàkk seen bakkan vox populi di ko feelu ñaar fukki doomi aadama ak ñeent ñoo ci génn àdduna ñaar fukk ak benn jële ci ay gaañu-gaañu bilan bi nag boo moytuwulee mën naa gën a jéggi dayoo ndax opération de recherche yi nag ñu ngi koy wëral ci jamono ji laas yëglekaay ne li mu ñi ci jële ay gaañu-gaañu kay jóge na ci ñaar fukk ak benn jamono ji yegg na ba ci ñeen fukk ak juróom addu jëmale ci wàllu tàggat yaram ak waa Arabie Saoudite yéenekaay bi di samp ab laaj ne Mamadou Salah ndax dafa bëgg topp ci tànku Sadio Mané sunu lamb moom xëy addu jëmale ci guerre bi nga xam ne rek am